na démb fële ca Ndakaaru quartier wu Pikine ak Géejawaay euh, programme bi nga xamante ni mu ngi koy duppee jëli sama carte ngir mën a wote liñ ci jublu nag mooy fexe ba euh, citoyen yi nga xamante ni ca njëkk yor nañu seen i carte électeur ñu bañ a fàtte ni dimanche incha allah le 24 mars dañu war a xëy ndëkki ba suur sañse ba jekk euh, dem ci bureau de vote yi dem voté ndax Euh, votre élection, c'est une fête de la démocratie, normalement. C'est censé être une fête de la démocratie. Et au-delà de catégorie aux citoyens, yoyo, mais amna ñi nga xamante ni bindu nañu ci liste électorale yi boobu ba tay demu ñu jëli seeni carte. Ñu japp ni na solo ñu wax ak ñoom pour que fi ak dimanche, ñu xam ni fii ba dimanche am nañu euh, sañ-sañu dem ci mairie yi ak ci préfecture yi pour dem jëli seeni carte d'électeur pour que ñu mëna voter.